yaakaar nga ni Sonko mën na nekk président. man ne euh, euh, wax dëgg yàlla ñaanu ko yàlla pour waa Sénégal. lu tax waaw parce que pour man euh, honnêtement bëgguma ko wax nag nii parce que je trouve que c'est pas bi may wax. non mais waaw xam nga. non dafa man xam nga sama position ci Ousmane Sonko dafa naa ne man ba may wax. sama xalaat ci moom boobu dafa naa euh, Macky Sall dàq ma ko boobu kenn xalaatul ku wax ci moom ku am fit wax ci moom léegi nga parce que gis nga Aïssatou Diop a am fit wax. ok à commencer par presse bi kenn mësu ko ñeme. ok donc euh, loolu naa sax mais pour pour man pour le moment nii fi ñu toll nii ñuy dem euh, ci muy dem ci élection man bëgguma duma yàq xew. xam nga kañ laay mën a wax ndax sama position Sonko ñëpp xam nga xam nga Macky man soo sa naa ci wax ci moo tax moo yor. coow coow bi xaaral xaaral ma ñëw. fi mu toll nii. Mhm. Macky Sall sa naa wax ci moom ndax moo yoon cuggal gii gi waaye euh, je trouve que euh, tey yaa ngi may laaj nii xaw ma ni kañ lay génn def naa dina génn avant suba jour élection. Mhm. dañoo taxaw ma ñëw taxaw di wax te gis nga ba léegi même Macky Sall neew mu kenn ku ne voté la la neex mais xam nga ñëw ci veyu élection. aussi capital man comme ni ma wax Sonko man moom homme politique yi awma si ak kenn xaar ma yàlla euh, sama xalaat nag laay wax ci ay seen ay fee ñoom seen yëfi bopp nag sama yoon nekku si mais tey bugguma xam nga laaj moom ma tontu loolu tontu bu dëggul tontu bi ma tontu Macky Sall nga ma njëkk laaj ma ne la Sénégalais yi d' abord xam nañu ni valeur carte na ku ne voteel la nga sa na te Sénégalais dañuy xam ku ñuy voteel Macky Sall ma ne la lii mooy premier tour présidentiel. Mhm. buñ ci génnee ndax xam ni mu teg foofu. non fu may waxee mooy te Sonko xaaral ma Sonko dama la laaj laaj ne ma ndax yaakaar nga day nekk njiitu Sénégal. mun na nekk mun na nekk ñu naan ma ne la yéenewu Sénégal ñu am président de la république tudd Ousmane Sonko xam nga loolu dafa leer. xam nga ci législative yi ñu jëm xam nga Sonko du candidat. Mhm. dégg ma ciy wax. Mhm. mais comme ni ma la wax am na yoo xam ne nangul ma ko chéri mooy euh, man li may def chronique laay def te li may wax journaliste laa te duma ma journaliste bu tuuti. Mhm. lépp lu ma damay teg dama ko teg ci naar mais euh, c'est pas pour rien que Sénégal di tere propagande ak. non man fu may waxee mooy. man fu may waxee mooy. Euh, lan moo ko manqueel ba tey nga ne mënul nekk président ak yan qualité tey la war a indi ci la war a changé parce que tey gis naa ñu bëri ñoo xam ne dañoo àndoon ak moom mhm. waaye tey si communique nu muy wax waxee ak nu muy waxtaanee moo tax ñu bëri dañoo retiré waaw loolu laa xam nga xam nga sànq li ma njëkk wax dama ne ne yaa Sonko dafa ñëw am benn chance tombé ñu Sénégal yi ma dem Macky Sall wax naa la ne man nii conseil casserole ma bokk naa si njëkk a génn wax naa ko sax si télé bi man xam nga nëbbu ma sama dara. ok boo communication ñëpp xam nañ ko mais comme ni ma la wax rek euh, ma dugg si oto yu yàqu yi ndax oto yu yàqu euh, euh, ñu ngi si cappaandaw la sénégalais yi nga war a voté. Mm. loolu taxaw naan présidentiel ñëwagul. Mm. xam nga wala bu ñu gis nga xam nga ni ñu defar bu ñu paree si élection yi. fekk nag maanaam même loolu si élection dama am temps nag bu ñu di jëm sama su noo ko dama naan bu ñu passé élection nga ñëwaat ma jànkatal la résultat yi waaye je pense que bu ñu passé élection yi duma am